اتصلت بالاخ رفض من قطع البيت رفض الدولار يقول لك حاجه من الجائكه الدين ولا يرمي ساسو لما هو نور لكن ما دولت في ما يدري ما يدري في كتب سيد محمد المنتقى من اجل ياسر بن محمد الاخ محمد بن حمد يا وجه حتى من غيره يعني راح ندير امر من الاسلام من ايوه تجمد في الاسلام يمكن على درجه ما بصراحه لحد الاسلام بقى تبتدي صح السلام السلام بقى جنب sëñ bi waa dañ ko laaj jàmm mu ne xaw ma lu gën tey xaw ma lu gën tey. dëgg la walaay jàmm mooy lépp. képp koo xam ne yaa ngi woote ci jàmm. na xam ne yaa ngi teg sa tànk fa mm-hmm. loolu yëpp war ko bàyyi xel nga xam ne dañoo nekk ci réew mi ci wax buñ mën a nekk ak lu mën a doon seen métier moo xam politique mooy seen métier moo xam liggéeykat lañu moo xam syndicat mooy seen métier moo xam militaire lañu moo xam police la wala gendarmerie lu mën a doon lépp métier moo xam ne yaa ngi yor dugub ca bàyyi xel jàmm. Mm. jàmm jàmm jàmm solo. kon nag képp koo xam ne yaa ngi woote ci loolu. jàng na Cheikh Mouhamadou Mountakha ndax njabootam moom li mu jàpp mooy njaboot lislaam yëpp ak njabootam lislaam yëpp ay partenaire lañ lislaam jëf ay xaritam lañ lislaam jëf ay bokkam lañ kon képp koo xam ne yaa ngi woote duñ noppal ñu leen jëme ci jàmm na nga xam ne moom koy def ñu ne la bu baax nee naa gis na sa taxawaay ci anam yëpp gis na ci diine ji waaye pare pam mooy li nga bokk itam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 ci ci jataay bi xam na ne ñoom ñëpp nañu maase fonk jataay bi jataay bi sunu bi xam ne moom lañu war a def itam ngir mm-hmm. di ci waxtaane lu jëm ci sunu diine di ci waxtaane lu jëm ci jàmm mm-hmm. ñëpp ñëpp fonk mm-hmm. ñëpp téye kenn ku nekk lépp loo xam te loo xam ne ci biir ci ci biir Sénégal di ci biir àdduna si ak fi ko sa kàtt mën a rek di ci xam kon waxtaan bi nee يرجع عن قراءة التحمل المنسبي نعطيه فتوى نعطيه عنقى ويفهم sant gërëm soññ ci sama ñaan yàlla itam amin taxawaay bi ngeen xam ne moom ngeen ci bëgg a def amin nag lépp ku woote jàmm amin atal amin nag nee nañu def ñaan yàlla mottali da ngeen ci bëgg lépp am amin nag diine ji am jàmm bo àndandoo te booloo réew mi am jàmm àndandoo booloo amiin liggéey ci at bi seer amiin